الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي bi تي في جسان فيدوبي ليلة كتم تجاني الله الله سرها سار وداني الله الله ليلة كتم تجاني الله الله الله صحبي في أعلى الجنان الله الله حسبي ببر رؤوف الله الله حسبي به وكفاني الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله أمام النوادي الدوي ويكي الأسجعين تحرك لي تجاني ما أفزعي ألم تعلمي أن الغناء مهيج رسيس هوى في القلب غني وراجعي أخو الحب لا يخفى إذا رمت كتمه يهتك وجده بداخل الأضلع وذلك حب القلوب أحمد سيدي وذا موقع الأسرار في كل موضع ممد رجال الله من قبل كونه وساقيهم من كل شرب مناقع قد ارتفعت أعلام نهج إمامنا بحب رسول الله كهفي ومجزعي وتأتي قريبا فيضة الختم هيئوا بتفريغ أغيار فتحظى بموضعي فإن الأواني قد ملئنا بغيرها ألا فافرغها تلتقوا كل أنفعي عليكم بحب الختم واسعوا لذكره مرادا ومثنى واسمعوا كل ما اسمعي عليكم بالاستغفار صلوا وهللوا وذلك سر الخاتم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 شيخ أشياخي أبا العباس سر الله لا الله الله الله لا الله الله لا الله لا الله لا الله الله إلا فيا بشرى بهذا الشيخ هذا العبد يذن الله لا الله الله لا لا لا لا لا لا الله لا الله لا الله الله الله الله الحاج إن وأنا جنود الله ووابرهام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

الله الله أمر على ديار ديار ليلى سخمنا قلبي ولكن هب من سكن ديارا رأيتك يوم الجمع عبدا وسيدا وقد كنت قبل القبل في الحضرة القدسي كما كنت قبل القبل لله ساجدا وقبل الوجود العرش ولوه وكرسي فإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإن بالحمد لله في مغرب الشمس أذكركم ليلا أمامة متاع له ودرعة البيضاء ودرعة التركيب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 إلا الله الله لا إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله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 yàlla def na beneen yoon ñu dajeyaat fii ci Medina Cheikh Ibrahima nga xam ne mooy markazi sirril xatmi bàyyi ko tuddee fii mooy central yi mbóoti cheikhu tijaan yi xaqiqatan bu ñu yàlla mayee nag ñu daje di fuuglu di bégee di taataan di taasu ci barkeeg Cheikh Tidiane waaye yërmaaneeg yàlla tabaaraka ko taala ci tudd Mawlana Seydi Ahmada Tidiane fàttaliku ko ak bég ci maqaamaam bu kawe bi nga xam ne yàlla jagleel na ko ko muy al maqaama maqaama katmiya bu fekkee ne nag yàlla may nañu ñu dajeyaat dañuy sant yàlla bu baax a baax di wax ci turi cheikh Mouhamadul Kabir mi nga xam ne mooy xalifa cheikh Hassan Deme radiyallahu anhu moom ak mboole mi ay rakkam Cheikh Mouhamadul Habib Serigne Aliou Deme nga xam ne jëwri ni réew mi la di ambassadeur yi Sénégal fële ci Oman sir président nome ko ko bu yàggut ñuy ñaan yàlla yàlla defal ko defal ko tawfiix di ko sàkkul ñaan ci kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ci turam lañuy ñuy tatagalee mboolem gan yu tedd yi nga xam ne ñëw neen bàyyi ko fu nekk ñëw fekkee si guddi gii nga xam ne si Xasan Dem radiyallahu anhu mi nga xam ne kenn la ci doomi xadara bii nii kenn la ci àndandoor yi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu nga xam ne ponk bu mag la ci xadara bii nii xaj Xaaji yi moo ko daan wax alxalifa mu ne Sëriñ Asan Dem ponk bu mag la ci xadara bii te duut maa ko ko def wala mbooloo mi moo ko def waaye kii fàkk dëkk bii di Cheikh Ibrahima mooy ki nga xam ne moo ko def moo ko samp ba gannaawum gisee góorloom ak itteem ak mbëggeelam ak ni bëgg taalibeem mel mu boole ko ci keno yi nga xam ne keno yu dëgër leen danga ci xadara bii nii si xasan moomu nag nga xam ne Leyla Katmiya naam mu ngi fi woon am na ñu ko daan màggal amaan na ci taasu barke ci guddi gi di ñaan yàlla waaye génnee ko def ko defal ko tànt waaye def ko muy jotaay boo xam ne day nuroog comme gàmmu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi fanaanee cee waxtaanee jaar-jaari Cheikh Tidiane yi xamuñ ñun ku ko ko jiitu fii ci réew mi ba mu koy tàmbale benn rek la woon mu ko doon dafay fële ci làmbitu tukulóor ba léegi alhamdulilahi rabbil alamin jotaay boobu noonu mu ngi continuer ñi ko jiite tey Seydi Ahmed Liengue ne nga xam ne moo jiite mboolem xalpulaar yi nekk fii ci kawlax mu ngi nii teew ànd ak délégation bu mag boo xam ne Thierno Madani moom moo leen yebal fii nii Cheikh Hassane Dème moomu nag Fuuta la bàyyeekoo ci ndigali sëri ci gànnaawum génte sëriñam sëriñam fàddu di Mawlana Thierno Seydou Sohraaw Dème may nuyu sëtëm yi nga xam ne jóge koo neen ba keneel def délégation bu bag ñëw fekkee si dégg nga jotaay bii nii mu yebal ko ci gént ne ko li nga bëgg di ko sàkku amul fii demal fa jant bi di sooyee ci alxaaji Ibrahima Niass nekkul ci kaw suuf tey ku ko gën a xam yàlla loolu moo taxoon mu bàyyi ko fuuta gàddaay ñëw fekk si Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu di ut si yàlla tabaaraka wa taala waaye ba mu ñëwee góorgóorlu am mbëggeel am teggin rëj-rëjloo ak góor yu baax yi nga xam ne ñoom la fi fekkoon ba jot càkkutéefam sëriñam na ko damintu lak darkal muradi man Cheikh Ibrahima dama nal naa la nga jot sa càkkutéef yow hasan Dem sayakunu lak sha'nun 'azim fi tariqati al ahmadiyyah al muhammadiyyah al ibrahimiya yàlla dina feñal ci yow mbir mu mag mbir mu kawe may gu reuy ci tariqati tijaan bii nii loolu nag barkeeg ak ñaanam feeñ yàlla feeñal na ko ci leket mi gi nii benn la fi woon léegi lu limu la fii ci Kaolack ba Dakar fu nekk ñu ngi koy def kon ñi kooku moom moo oote bés bii nii Cheikh Mouhamadul Kabir nag di tal dalal ay ganam yoo xam ne ganam yu tedd la njëkkee ci dëkk bii nga xam ne fii ren dëkk amul kenn koo xam ne des na Cheikh Mouhamadul Habib doomi sëriñ dam de nga mu ngi ni de nga ak ay rakam waye bes bi ñu tuddé ko mam Abdou ñang khalifa Cheikh Ibrahima ñess bu mag ba tay tay ba ña kenn desut Cheikh mohammedul mustafa ñang outu fi de nga da khalifa ba ak fami bi andak ay rakam Cheikh oustad abou bakkar ñang waye timit ak Cheikh Ahmed bukar ñang ak sëriñ Aliou Niang ak ña nga xam ne ñoom ñoom leen ànd ak incha allah bu ñu jëlee kàddu di leen présenté délégation bi nga xam ne moo jógee tey ba ñu waaye ci biir loolu tamit jotaay bi am yokkute boo xam ne ci wàll zahir gouverneur bi nga xam ne moo jiite région bi teew fii ci barab bii di Seydi Ali Badara Meng ànd ak préfet bu baax bi di naatangoom ci lef mi Seydi Ahmed Tidiane dégg nga Thiaw mu ànd ak nag délégation bu mag commandant polis mu ngi mu ngi fi teew ànd ak ñoom waaye service di d'hygiène tamit teew leen ànd ak délégation gouverneur Bara Diédhiou ba léegi monsieur le maire ki teewal fii maire bi Sidi Cissé ak conseil départemental bi nga xam ne monsieur Gakou dégg teew na ba léegi monsieur le député Omar Diouf jóge ko ba fële ca Kaffrine moom it mu ngi teew fii nii ak suñ xarit suñ wëllëre nga xam ne responsable politique la di Alioune Badara Diouf jóge ko ba dakaar ñuy tatagal bu baax nag gouverneur di wax ne sa première Layla Katmiya mu ngi la fekk ci Kaolack ñu lay wax bismillah waaye tamit sa première gàmmu Medina mu ngi la fekk fii mu ngi la fekk ci sa nomination bu bees bi ñu lay wax yàlla yàlla defal la ci tawfiix te itte yi nga xam ne jël ngeen ko ci alhamdulilahi rabbil alamin mboolem taalibe yi ñu ngi ciy kontaan kon yàlla yàlla àggale ko ci jàmm monsieur le gouverneur ñu ngi lay tatagal bu baax ci <coughs> kër gi di sant tamit sa taxawaay sant tamit sa man-man yi nga xam ne nayoo ci benn ci def ko ci bés bii nii ngir mu réussir te nag ci diggante bu gàtt ci leen am daje ak yow yow ak ak préfet ngeen taxaw ci bés bi ba nga xam ne lu bari lu ci waroon def ngeen ko kon ñu ngi lay gërëm bu baax di la di la sant di la wax nag jotaay bii moom nattu nañ ci ne jotaay yokkute la ci zahir ak ci baatin kon yàlla yàlla yokku la gouverneur monsieur le gouverneur Amadou si moo njëkk a taxaw taxawaayu am solo jamono ju mu nekkee Kaolack ci léeg la kat mee gii nii waaye tey yàlla yokk na ko feebar naa nekk Paris gént Thierno Hassane di ko ñaanal fii ci jotaay bii nii parce que itte yu rëy la doon def pour jotaay bii nii réussir ndax géej ak Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu yaakaar naa ku fa ñëw dinga naan ba màndi dinga fóotu ba set di nga yóbbalu tamit te bés bii nii duwut lu may bési Mawlana Cheikh Ibrahima Cheikh Ahmed Tidiane te juumuma duwut lu may bési Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu kon ñu ngi lay tatagal bu baax a baax di la gërëm incha allah jotaay bi dina tëddee nii ñu tàmbalaale ko di leen jox kàddu ki nga xam ne moom leen tuddee bës bii nii muy fameem fameem ñu ngi teew di maam Abdou Niang radiyallahu anhu kenn kuy wax ci ñoom dinañ ko jox dinañ ko jox kàddu incha allah mu jotali kàddu gannaaw buñ leen gërëmee bu baax a baax ñoom it euh, buñ ci noppee ñu woyal kàddu gi mu jëm ci Seydi Mouhamadul Habib bi nga xam ne tey ci njabootu Cheikh Ibrahima gi fi nekk moo ci mag di xarit di wëllëre di lépp déngale ci kër gi moom it dinañ ko jox mu àddu su ko defee nag ñu jox kàddu gi monsieur le gouverneur mu joxe kàddoom incha allahu gannaaw bu noppee ci kàddoom euh, Cheikh Mouhamadul Kabir dina ko tontu dina jox ndigal kenn ci njaboot gi mu delloo ko kàddoom yu yu yu rafet waaye njëkk loolu dëkk bi ni ma ko waxee kenn desut cheikh Mouhamadou Habib mu ngi cheikh Ahmed mu alxaaji Babacar Niass nga xam ne moo teewal fii xalifa lew na ñeseen di suñ nijaay di suñ wëllëre di suñ lépp moom it teew na comme ni nga xamee ne noonu la fiy teewee at bu jot ànd ak délégation boo xam ne délégation bu rëy la sama nijaay Mouhamad Moubachir doomi alxaaji Abdullahi doomi maam xalifa moom it mu ngi àndoog moom ba léegi Seydou Mouhamadou Sani bu seti sëriñ maam sëriñ Bay Ñas moom mu ngi fi teew Cheikh Tidiane Mouhamad Kabir Faye moom mu ngi fi teew Cheikh Moustapha bu Seydi Barham Diop mu ngi fi teew nga xam ne oustaz Barham Diop ku ku tudd Leylatoul Qadr rek di tudd di ko fàttaliku ci taxawaayam yi lu ëpp juróom at moom mooy ki nga xam ne moo doon def waxtaan yu kawe yi nga xam ne moo daan xew fii ci Leyla Alkatmiya yal na yàlla yokk leeram yal yàlla taas ñu ci barkeem. gàttal li fi teew ci kilifa bëri na boo demee ci soxna ya yaa ngi gis Adja Fadem ma nga feggoog suñ tanta al hajja lii di maam Fat Diagne moom ñu ngi koy tatagal bu baax a baax a baax di ko nuyu ak ñeneen ñoo xam ne seen tur da nga da bëri na kilifa yoo xam ne ñu nga toog ca biti nangu ñoo dugg. ngir xatak dégg nga jotaay bi ñoom it ñoom ñëpp ñu ngi leen ñu tatagal bu baax a baax di leen gërëm ci seen teewaay euh, kon ñu ngi yëkkati kàddu gi di ko jox xarñang mi nga xam ne tey xalifa bu mag ba àndandoori Cheikh Ibrahima bu mag ba nga xam ne moo njëkk a naan ci faydatu tijaaniya borom alfu salaati di maam Abdou Ñang moom leen tuddee jotaay bii ngir fàttaliku ko ndax góor la ci góor yi tariqa bi ngir timit wane ne wasila boobu oustaz Aliou Ndaw doon waxtaane yàlla sant ñu leen neen ragal yàlla te ut jottalukaay yoo xam ne ñoo ñuy àggale ci yàlla tabaaraka wa taala mu indi ci lay yoo xam ne lay yu wér la jottalukaay yooyu nag dañ ci jël kenn ci tijaaniyatu di ko fàttaliku te mooy maam Abdou Niang mu baax moomu mu tedd moomu nga xam ne xalifa Mawlana Cheikh Ibrahima Niass la woon radiyallahu anhu nga xam ne tamit bàyyi wax na ne mooy gën ji taalibe mooy gën ji àndandoor mooy gën ji goro moom maam Abdou Niang moomu radiyallahu anhu ñu tuddee ko ko ngir fàttaliku ko waaye ngir tamit dundal alaaqa relation bi nga xam ne am na ci diggante Cheikh dem ak famille bu kawe boobu noonu jaxasoog ñoom ci wàllu goroxante jaxasoog ñoom ci xaru xaritoo ak wëllërahante ndax at bi nga xam ne Cerno ci la ñëw ci dëkk bii nii fekkante ak maam ab Niang dégg nga de ci jamono ndax at boobu noonu ci la uy ji boromam ba nga xam ne bàyyi ngay ñaan ca rexlatul Konaakiri ne yow yàlla yàlla nga ma jangal dammu dammu yi nga damm damm damm ak dégg de Medina ndax Medina dafa ñàkk ay weer ci atam mii mooy at mi nga xam ne sëñ Ousmane Ndiaye génn na àddina maam Abdou Niang dégg nga de génn àddina kon gannaaw gi la Cerno ñëw man nee na wax na ci ñu jàng damm-damm boobu noonu dégg ci la bokk ndax am na beneen firnde bu ko mën a leeral ndax Cheikh Hassan Dem dafa bind lettre Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu nettali ko benn gént ba mu ba ba mu ñëwee ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu bàyyi lam bind ca gannaaw lettre ba daf ko wax ne biig de man dama gént gis Serigne Ousmane Ndiaye mu dikkal ma ci nelaw ma xëy Xasan Dem dugg si dégg ci man maa ngi yaakaar ci yàlla mu donn dégg nga mbóotam kon loolu dafay firnde ne at boobu nga xam ne ci la ñëw moom si Xasan Dem mu tombeek dem ak maam Abdou Niang radiyallahu anhu moo tax yàlla def na ak photo gu amoon digganteem ak mbooleem njabooti da nga dee siñi ndax mën nañ cee cité lu bari mu nettali na fii ne xalwa samadaniyatul kubra di juróom-ñett fukki fan ba mu ko duggee nga xam ne ñeen fukki fan yi yu mujj yi mu lekkatul naanatul ca lu maamul nee na nu mu daan duggalee lekk bi noonu la ko daan génnee Cerno ba mu génnee dafa loof lool ba xam daanu maam suñ maam alhaaji omar ñang radiallahu anhu di doomi maam amadi euh, maam maam abdu ñang mooy ki nga xam ne moo ñëw dimbale ko mu sukkandiku ci kawam muy dox ba mu dëgër kon alaaqa boobu noonu alaaqa bu bu bu bu bu rëy la ci foofu ci maam ci ci ci ci suñ bàyyi alhaaji roq baaba roqi ñang waaye ca la ko jiitu maam Cheikh Ousseynou jax soo goo xam ne su ma ko bëggee tudd mën naa am mu jël lu yàgg da nga ci jotaay bi waaye yàlla def tamit wëllëre ak suñu diggante ak njaboot gi fi ñu toll nii ñoom ñëpp nekk suñuy xarit nekk suñuy wëllëre lu xew ci kër gi ñu taxaw ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu rëy la kem noonu tamit ñoom it lu ñu xewle xalifa bii Cheikh Mouhamadul Kabir yónni ñi ñu ni tamit ñu def fa ay taxawaay donte sax suñuy taxawaay dina xées seen taxawaay ñu leen ñu gërëm nag ci seen taxawaay ci bés bii nii tuddee gi dañ ko defoon rek ngir doxal fàttaliku kóllëre googu ak dëgëral ko waaye liñ def ci bés bi rëy na lool ci lépp luñ ci war a def rek ñoom participer nañ ci participation bu am solo ca bernde ya ci lépp ñuy nuyu xalifa ba maam Amady Bukaar am Ahmed Bukaar ñang ak mbooleem ay rakkam di jox nag kalima bi Seydi Mouhamadul Moustapha di doomi bàyyi Omar Roqi ñang di sëti di doom tamit ci Seyda Roqi mhm. di di ko jox kàddu gi incha allah mu wax ci turi dégg nga de xalifa ba ci turi famille bi Euh, ñu ngi wax tamit ne délégation fondation Oustaz Barham Diop def neen ñoom i délégation bu mag a mag a mag ñii bàyyeekoo dakaar ñii bàyyeekoo fu nekk ñëw teew ci jotaay bii nii dégg nga ànd ak seen xalifa Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop di Mouhamadul Moustapha Diop nga xam ne moom it mu ngi ci biir dégg nga da tur woowu noonu ndax buñ ne si ñi la nga mën a dugal bëri na lool dugal nga Njaay dugal nga jóob dugal nga ñaan kon ñuy tata ñu leen ñuy tatagal bu baax a baax kon bala ñoo bala moo guddi rek ñu jox kàddu gi Cheikh Mouhamadul Moustapha Niang di ko ñaanal yàlla da nga da tawfiq bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu wa ashaabihi ajmain amma baadu mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu nuyub islaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñëw nañ ci bés bi bés boo xam ne daanañ ko teewee waaye ñëw biñ fi ñëw tey wute na ak ñëw biñ fi daan ñëw ndax bés la boo xam ne dañ ko tuddee suñ maam xaaji Maabdu Ñang xalifaab Cheikh al Islam xaaji Ibrahima Ñas ñu ñëw fii ci ndigal xalifa bi Ahmad Bukaar Ñang xalifaab Tayba Ñangeen xalifa Ahmad Bukaar di doomi maam Cheikhu Sëtu Ñang radiallahu taala anhu mu jox ñu ndigal ñu jiite mbooloo mi fi ñëw tey mbooloo mi suñuy mbokk ak suñuy rakk ak suñuy mag ñu ci suñ mbokk Moustapha Diop di suñ mag suñ mbokk Mouhamadul Moustapha Diop mu suñ nijaay Alxaaji Omar Diop bu fi teewoon kàddu gi moo koy jottali waaye comme yaram bi dafa sutaate ñi sàkku ci mbooloo bi ñaanal ko yàlla dëgëral ko dañ koo may wér ànd na fekk ñun sax démb ziyaare si Kabir al ak ay rakkam waaye tey yërëm nañ ko ci toogaay bi moo tax Xalifa Ahmad Bukaar njàng bu tey jox ñu ndigal ñu ñëw uutu ko fi mu ne ñu jotal Cheikh Mouhamadul Kabir ne ko kontaan nañ ci bés bi rawatina moom ak mboolem topp mi nga xam ne ci bañ a ngeen lañ duggee ci pays bii di gis ne cër boobu lu ngeen ñu may la moo tax lépp lu ñu mënta indi fii rek dañ koo manut wala dañ koo amut waaye éloon lañ fi indi lu bëree bëri luñ naw mu ngi gërëm mu ngi sant ci turi mbokk yi ak turi taalibe yi loolu buñ ñëwee naa jotal loolu xajma Abdou Niang boroom alfu salaati fa bëri lum ni doog Mawlana Cheikh Hassan Deme ndax ñoom ñëpp dañoo jógee ci seeni dëkk uy si bàyyi wax nañ ne ba muy gaañu rek la coono ñëw fii yàlla du ràng ab waliyoom ak may di ko dindi at moo tax ku fi jógee rek dana am koo ut xam nga loolu du hasard xaj ma am ñoom génn àddina rek coono wàcc fii te ñu bëri luñ ñu doo ci bëggu Cheikh Ahmad Tidiane yi ndax bàyyi ca ajam nga ba muy jaar Fass di ziyaara xaj ma abdu moom la yóbbu woon ay gént yum nettali Mawlana Cheikh Ibrahim wane ne na moom itam ku am xilaafa la ku am digal la ci Cheikh Ahmed Tidiane buñ doon nettali lettre yooyu dafay gudd doy na liñ déggee ci njaboot yi corno démb rek muy cofeel goo xam ne co coono ràng ràng nañu ko ne nañ nettali ne ku sant ñang mosuma def lu ma naqari loolu yàlla moo ñu ko defal ci moom man mii nga xam ne sët laa ci ki ñu tuddee bés bi xaal ilima Abdou Niang ba ñëwee fii ci kër gi te yàgg laa ko wax ci xew yi koo si caameen ak feneen ak feneen leen wax ne man ci taalibe Cerno yi laa bokk ndax Baye Serigne Aliou Cissé bi ñu tarbiya daf ñoo waxoon dem leen jàngi fu ne nii yéen fii laa mën a am ñoom yéen waaye aw say yi ñoom damay continuer ñoom waaye yéen dem leen ngeen jàngi ñu dem Qahira jàng yi biñ ñëwee fekk mu génn àddina ma ne suma yaay dama bëgg a continuer suma tarbiya suma dox ci yoonu suufi yank yi mu ne ma li ma lay dégg dénk daal mooy ko defee ci koo xam yow ya te da ko fonk ah ma yuurndu seet ne corn moom fu ko nit di jaar ba yem man xaw ma ci baax gi ci xam-xam gi ci wegu gi ci taar bi ci buggu Baye Niass radiallahu taala ci buggu Seydina Ahmad Tijaani radiallahu taala ma ne kon kooku la ma ñëw mu mottalil ma suma tarbiya kon bu ma ñëwee fii di wax ne taalibe laa fii dana neex a dégg ñu ngi gërëm bu baax Ahmadul Kabir al Khalifa sëñ Abdul Baqi Taha sëñ Aliou Thierno mboolem njaboot gi goro jigéen suñ mag Fatou Deme ak ay rakkam ci fonkeel gi ci mbokkoo gi nga xam ne dañ koy sàmm ñoom daay man te ak mbokk yàlla moo ko dénkaane di gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal leen fi ñu yàgg taxawee bés bi ñu yàgg fee ñëw di leen fi yàgg a fekk barke Baye ak baayam barke Seydina Ahmad Tijaani ci maqaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwuñ fii daal tey pour joxe benn dars liñ fi war a wax Sëñ Ibrahima Ndao wax na ko fi ci xam-xam barke de loolu rek wane ne yóbbante moom dañ ko war jotal te khalifa Ahmadou ma wax ñu utu ko fi ci bés bi ñu fi teewoon wax lu dàkk li ma wax gën ko fassa dawé na ko lu nek nak wax naa bokk Ahmad bukar mu baye Baba serigne ali ñang suma rak Babacar ne yéen ñëpp da ngay wara a kenn utu ba ci kaddu gi waye ñom ñu togal ma kon caaxaan moo fàqe moo tax ñu ngi doyloo kilimi yooyu di gërëm mbooloo mi di gërëm ñi fi teew yàlla yàlla faj mboole mi ajo yàlla yàggal fi bés bii ñuy yàgg ñaanal seen xasan dem te xam nañ ne ñaanal yi ñu koy ñaanal suñu bopp la ñu ñaanal ndax ab milliardaire tey boo ko mayoon dërëm dafa mel da nga koy ñaan te moom am na cër bu ëpp loolu ci yàlla kon buñ toogee ci bés bi wàcce fi ay kaamil ay salaatul faatihi di ko ñaanal mu ngi mel ne suñ bopp rek la ñuy ñaanal ñu ngi jéem a emale foofu wax ji di ñaan yàlla lu ngeen fi déggee mu doon njëriñ yàlla boole ñu yool bi lu ci wàññeeku ñu ngi yàlla yàlla refetal ko xool yi ñi fi teew bañ ma mën koo dégg wa dalika allahi bi azizin salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wax naa léegi ne Thierno Aboubacar Deme dégg nga de teew na defe naa du ku ci dëkk bi ñépp a ko xam ànd ak Seydi Thierno Ahmed Saïd Deme nga xam ne moo jiitee mboolem famille dégg de day njobba dem njobba dem képp ku aju ci ndemeen boo lalee càllalam foofu ngay wàcc ji ndemeen yi dañoo jaxasoo lool jaxasoog liyeen yi jaxasoog wan-wan yi jaxasoog dégg nga euh, baabaay yi koo ci lim daa nga askan rek ci ñeent maam boo moytul ngeen dajee foofu noonu ñoom it ñu def délégation bu mag ñëw fekkee si jotaay bi fekk fi njabooti Thierno Seydou Soxra jóge ko ñoom itamit ba keneel ay sëtam da nga ñëw teew ñoom it ñëpp ñu ngi leen ñi tatagal bu baax a baax di kontaan ci ñoom waaye ba léegi Cheikh Saïd Sall di xalifa Cheikh Ibrahima Sall radiallahu ñëw na moom ak mbool moom ak waa mboolem da nga ne huda nam ko daan defee ci seen i teraanga ñu ngi leen ñi tatagal bu baax a baax euh, ñu ngi tatagal tamit suñu baay Barham ñas nga xam ne ku baax la ku tedd la ku am taxawaay la ci bés bii nii ak mbooleem suñuy dëkkandoor nga xam ne seen kër yi la ñuy ubbi di ci dalal gani ñii di rey seeni i gàtt wax dëgg yàlla di teral gani jëpp jàpp na ñoom guddi gi ñoom ñoo ko moom ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp ñu ngi leen di dégg de gërëm waa àndoog bàyyi ñoom it teew neen ak délégation bu am doole ñu ngi leen di tatagal bu baax a baax euh, Thierno Dembali teew na moom ak Thierno Amadou Anne ànd ak nag seen doom Thierno Ismaïl doomi Thierno Abdou Karim Sow ñuy def délégation bu mag bàyyeekoo ba Fuuta ak daayira ba lépp da nga ñëw teew ñoom itamit ñu ngi leen di tatagal bu baax a baax a baax mboolem dawaayir yi mboolem kilifa yi sëti Baay Cheikh Oumar Touré radiyallahu anhu nga xam ne xariti Thierno loon di doomi suñ mag Seydi Habib Touré ñëw na teew jiite délégation bu jógee Ndofane moom it ñu ngi koy tatagal dégg nga def bu baax a baax a baax euh, ñu ngi nuyu nag mbokk yëpp ak dégg nga def xarit yëpp bala ñoo guddal maa ngi nuyu Mamadou Ba bu alxaaji Abdullahi dégg nga di liggéey fële ci seen Senelec nekk was wasl diggante Senelec ak Medina baay ñoo ngi koy tatagal bu baax a baax moom it di ko nuyu euh, njëkk may jox nag Seydi Mouhamadul Habib mu tatagal gan yi waaye tamit wax ci turi njaboot gi ndax mooy ki xam ne moo fi mag di suñ xarit di suñu wëlëre bu baax gannaaw gi ñu jox gouverneur Euh, ñu ngi seedeel Cheikh Mouhamadul Kabir di ko seddeel njaboot gi lépp ne bés bii nii njaboot gi lépp a ci taxaw te su ma waxee njaboot gi si xasan dem gi mooy doomam yi mooy taalibe mi te doomam yi amuñ ay taalibe leen ndax moom daf daan wax ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ba may ñëw di ko fekk si benn gaal laa indi boo xam ne ñaari yére moo ci nekk ak jawaahirul maani ak benn ab kaamil laa ñëw fekk si ko fii waaye lépp lu ma doon ut ci moom rek am naa ko ci ay maratib yu kawe ay maratib yu kawe ci péeb yàlla bi tabaaraka wa taala yàlla jox na ma ko fatxu ci àddina sax dégg am naa ko ma ngi ko wax keroog ba néegam bi lakkee fii nit ñi ñëw di ko masawu mu wax ko dégg ci jumaa ji mu ne nag Cheikh Ibrahima moomu nga xam ne lu ma doon ut yëpp am naa ko ci am naa ko ci amee naa ko ci moom fatul akbar am na amee naa ko ci moom kooku duma taalibeem rek waaye jaamam laa ñun nag ñu ngi ci yoon woowu noonu incha allah moo tax nag njaboot gi lépp taxaw neen xalifa bii moom moo ci jiitu muy Cheikh Mouhamadul Kabir ba ñuy wax waxi kat mi ñaari million la teg ne maa ko ubbee dégg jotaay bi njaboot gi lépp roy ko ci loolu muy suñ rakk Abdoulaye Deme son excellence Serigne Aliou Deme Cheikh Ibrahima Mamoun Niass Cheikh Mouhamadul Mansour dégg nga da rakkam Cheikh Mouhamadul Habib di demet ñépp dégg nga da taxaw ku nekk ci ñoom ne li sëriñ bi def rek ñu ne tamit dinañ jéem a def dara kem noonu tamit banaatu sidqi wa saad wa saadiqina ñoom it taxaw Adja Fat dem jiite ko jëf-jëf joo xam ne jëf ju rëy la muqaddami cerno yi tamit noonu ñii di joxe million ñii di joxe deux million ñii joxe lu nekk dañ koy wax rek ci buntu sant yàlla loolu nag su amee di dinañ la ko seedeel yow Cheikh Mouhamadou Kabir nga xam ko waaye nga ñaanal leen yàlla sàkku tamit ci kilifa yu fi nekk dégg nga ñu ñaanal leen yàlla surtout nga ñaanal yàlla tamit muqaddam yi ci njiital Cheikh Mouhamadou Dramé taxawaayam ci kër gi rafet na mat na du yendal du fanaanal lépp luy rafetal kër gi ak lu koy taaral ci loolu lay dox ñépp nag omatu ci gannaawam déggal ko lu mu leen wax rek dégg nga ñu defee noonu ñuy xëccoo pour def lu baax dégg nga ci buntu Cheikh Hassan Dème radiyallahu anhu kon ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla yàlla fay leen ci barke Baye Niass radiyallahu anhu ci barke Thierno ci barke Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu fépp foo xam ne muqaddami Thierno partout ñëpp ñëw leen ca Gambie ca fuuta ca Casamance dégg ca Fatick ci dakaar ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dégg ñëw neen ñëpp ñu ngi lañuy tatagal ndax yéen yéen a moom moom bés bi ku moom sa bés nag daanaka duñ la ci tudd waaye nag dineen tatagal bu baax di seedeel jëfam bu yàgg eh, ba léegi tamit mu continué loolu suñ mag Ibrahima Ba kenn mënu koo fàtte dégg ci kër gii ni ci taxawaayam ak ci liggéeyam Ibrahima yàlla na yàlla fay la ñu ngi sàkkul ñu ngi lay sàkkul ñaan di nga ci mbolo mi kon bala ma guddal rek inshallah abou bakkar sall euh momi tewna andak ay xaritam ak soppeem ak soxnaam ak wa këram nga xam bu kat mi jotee lu nek la ci def télévision yu bari mom moy fay pour ñu jàllale ci ay annonce jàllale ci ay émission kon kooku ñu ngi koy gërëm bu baax diko diko diko tatagal bu baaxa baax bu ko défé kàddu gi mu ngi jëm ci Seydi Mouhamadul Habib su àddoo ba pare nag incha allah ñu jox monsieur le gouverneur mu joxe dégg nga de kàddoom. alhamdulilahi rabbil alamin waaw yàlla julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla gërëmal ñu suñu sëriñ ki nga xam ne mooy borom jotaay bi muy Cheikh Ahmed Tidiane. ak xalifaam bu tinkeeku ci xilaafaam muy mawlaana cheikh al islaam cheikh ibrahima Niass radiallahu anhu ñu ngi nuyu fadilatu cheikh al imam daanaka bam mu ñëwee la suñ kàddu dagg ndax fu teew kàddoom moo gën a jotal kàddu yi fi nekk yépp ndax moom lañu óolu ci suñ waxtu juróom yi mu ñu koy jiite di ñu jiite ci yu baax yu ñuy def ci dëkk bi yépp ak yu ñuy def ci xadara bi yépp mooy ki nga xam ne waxam bu waxee wax yépp ferankulaay nañ te bu teewee ku toog amatoo wax dama doon taamu toog di déglu rekk waaye suma jarbaat Cheikh Abdul Baqi ne naa ci sànni kàddu ma ñaan imaam mu jox ma ndigal ci loolu imaam ñu ngi lay ziyaare fii ci sa kër soppe sa kër soppe baay Cheikh Hassan Dème Al Foutiyu kër gi nga xam ne ku taxaw laaj kër gi su doom yu jógut tontu la sax euh, dof yi fi fajoo mën nañoo jóg tontu la benn ci benn dof bu ñu fi raax Ousseynou Dof ku fi taxaw rek mën ngaa wax ci kàddu goo xam ne buñ la laaj bu jógee ci yow mu jëm ci corno buñ la laajee ak wilaayam buñ la laajee mandoom buñ la laajee xam-xamam buñ la laajee bëgg Cheikh Ahmad bu ñu la laajee bëgg baay ba jeex ci baay ba jëmmam nekk di jëmmi Mawlana Cheikh Ibrahim te loolu yëpp njaboot ak baay yëpp seedeel nañ ko ko kon ñun ñëpp ñi ngi ànd di ziyaare wàllu yu mag woowu bi nga xam ne wàllu yu mat la di wàllu yu mag yal nañu yàlla tëbb ci moom yal na yàlla dimbale imaam mii ci barkeb na moomu ba lim semb yëpp mu àggale ko ndax ñun ñëpp suñ ñaan moo war a nekk loolu rek imaam yàlla may ko wér lafal ko cat defal ko jàmm lépp lu semb mu àgg tam am ngërmande nijaayam alxalifatul kabir Cheikh Ahmed Tidiane yàlla ko yàlla delloo si ci jàmm mu ñëw fekk ñu ci jàmm xew bi nga xam ne ñu ngi ko jublu muy xewi gàmmu imaam yàlla na la ci yàlla may ndam yim la daan may walla yu ko raw sax te la nga daan def yàlla na nga am lu ko ëpp ci barke baay ak baayam ñu lay kontaane trop di la bëggee trop di ziyaare xalifa kër gi cheikh Mouhamadul Kabir suma xarit suma kóllëre di siyaare mboolem njabootu Corno di leen seede looy ne wallahi li seen bàyyi nekkee woon wàññi soo leen ci virgule wàññiwu leen ci xarf wàññiwu leen ci jumla wàññiwu leen ci dara ku gis seen tànk yi dana xam ne haadil aqdaamu min tilka man ba ma toogee fii ba léegi kenn ku ci nekk ci yéen maa lay xool bët bu rëy waaye ku ma ci xool rek ku ma ci wëlbati ko xool rek day mel ni jëmmi Cerno lañ ma teral lañ ma tegal wala lañ ñu tegal ñun ñu fi nekk yépp ñu ngi ñaan loolu yàlla ko yàlla saxal dëkk bii seen baay def na fi lu baax lu ne ca ba duggee ci dëkk bi ba léegi lu baax rek la fiy def loo xalaat ci lu baax rek ak loo gis ci lu baax rek na def na ko ci jéegu bu am ci dëkk bi ci ak mbaax ak ci njub ak ci xam-xam ak ci xamle yàlla boo ci xalaat rek na def na fi jéegu boo xam ne jéegu bu sori la ci ay tukkeem ak ci ay teewam ci ay yëngatoom ak ci ay dalam yàlla nañu ko yàlla fayal àggale na faylu bi foo xam ne fu sori la fu jotu la fu yaatu la dundal na xam-xam bi muy dund bi mu deexee bi mu ay doomam ñu ngi ci ay tànkam ñu ngi mel ni la bàyyi waxoon rek ci yonent bi ida saara xayru naa si naasi surtu waraahu wa in xalla yowman fal masiru baidu njabooti corno yëpp góor ak jigéen ñëpp ñu ci tànki corno yooyu yàlla na leen ci yàlla saxal ci barke baay ak baayam di nuyu suñu yaay Seyda faatu Dem di ko ziyaare di ko ñaanal yàlla yàlla barkeel ko barkeel njabootam di ñaan yàlla ci barke baay ak baayam ak ci barke Cerno mi ñu dajale fii yépp képp ku fi ñëw xaajo boo indi yàlla na ko yàlla faj te dafay faju dañuy ñaan rek waaye dafay am ndax euh, man su ma toogee ku mel ni imaam wax dëgg yàlla lu waay bëgg mën naa ko warlu ci teewaayam ak ci njubam ak ci xam-xamam ak ci maandoom ak ci barkeem waaye ñun ñëpp suñ ñaan tey dañ koy soppi rek ne yàlla na yàlla guddal fanu imaam ndax bu fanam guddee fan yu bëri dana gudd yàlla ko yàlla may lu dul jeex ndax koo xam ne lu mu am jaamu yàlla yi ñoo ko moom dencalut kenn dara te li gën a neex ci ay mbiram moom imaam mi mooy ku toog rek seet sa bopp rek da ngay foog ne ilima imaam yow rek la fonk yow rek lay jëflanteet loolu nag mat gi la yàlla yàlla dolli mat gi te yàlla may la wér yàlla la yàlla may wér yàlla la yàlla may wér yàlla na fi yàlla yàggal lool yàlla na fi yàlla yàggal lool imaam yàlla na yàlla may téeméeri at ñu soog laa ñaanal gudd fan loolu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñu la koy ñaanal te nii ñu la koy ñaanalee noonu la koy ñaanalee fépp fuñ ne waaye ñu ngi koy jollee feddali ci jotaay bu barke bii jotaay bii nga xam ne wàlli yoo ko sosoon doomi wàll yi nekk ci ñu ngi lay ñaanal loolu lu yàlla na gën tat ñu ngi leen di gërëm bu baax Cerno biir ñu ngi lay ñaanal yàlla ah, sa baay demut nga amee puso bi puso bi réer waaye say rakk topp nañ la jaar nañ ci li nga ne surtout Cheikh Abdoul Baqi mii mu ngi sonn ci kër gi guddeeg bëccëg di sonnewoo xam-xam di itoo njub ak taalibe yi di ci def dooleem di ci def kàttanam di ci def lu ne yàlla na ko fi yàlla yàggal sa kanam ñu ngi ndokkeel Serigne Aliou dem ci fal gi nga xam ne waa Medina yëpp lañ ko jox di ko ñaanal yàlla yàlla na ko jik te yàlla ci liggéey loo xam ne ki ko jox foogutoon ne dana liggéey lu rafetee nii lu gënee nii lu óoree nii di gërëm monsieur le gouverneur di gërëm moo Modou Ndiaye Rahma di ziyaare suma mag Cheikh Aboubacar Cheikh abu Aboubacar ñu koy ziyaare suma xarit la suma kóllëre la ñu ngi koy ñaanal moom it yàlla faj xaajoom yëpp faj suñuy xaajo yëpp soxla nañ nag loo xam ne moom la ñuy teralee gane gàmmu gi yàlla nañu ko yàlla jox ñun ñëpp yàlla nañu yàlla jox lu dul jeex yàlla nañu yàlla jox lu dul jeex yàlla nañu yàlla jox lu jeex ñu ngi gërëm suñ doomi baay euh, Seydi Baay Siis di ko ñaanal yàlla sémb yim sémb yëpp yàlla na ko àggale ci barke imam mii ñu ngi ñaan yàlla digganteem ak imam yàlla na ko yàlla gën a saxal yàlla na yàlla gën a dëgëral diggante boobu yàlla bu ci seytaane am cër yàlla bu ci nafaq am cër yàlla nay seen digënté yàlla nay digënté njugu mbay siis ak alaaji Ibrahima ñess nek njugu mbay siis ak Seydi Aliou Cissé yàlla nako yàlla def ñi ngi gërëm ñëpp ci turu famille Cheikh Ibrahim di ñaanal ñep mufidil الخيرات والبركات صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد مدد الكائنات وخاتم الرسالات وعلى آله وصحابته الهداة الثقات ورضي الله عن شيخنا وممدنا خاتم الولاية المحمدية مولانا الشيخ أحمد بن محمد التجاني وعن خليفته ومظهر فيضته سيدنا أبي إسحاق شيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi nuyu في تاويب góor ak jigéen mag ak ndaw di sant yàlla itam ci teew bi ñu yàlla may ñu teew ko fii bokk ko yéen ndax bu amee rek yàlla la neex ndax waxtu ko neexee mu indi ngant loo xam ne doo ci mën dara kon ku mu nga fekkee tey rekk yaay fekkee Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu anhu dafa wax ne ma la waqtu waqtu ibdain la waqtu ibtidain nee na waxtu wi waxtu feeñal la waaye du waxtu bind dara yàlla lim bindoon démb rek moom lay feeñal tey ku nekkutoon ci portale bi démb doo ci nekk tey kon ñi ci nekk tey yàlla moo leen tànn démb tay door a ñu ngi sant yalla ci lolu di len indil nak suñ nuyo ak ñi andal ñep ndax bi may ñew ma ngi ànd ak suñu mbokk suñu xarit muy turandori yi Cheikh Ibrahima Niass muy Alaaji Ibrahima sis ak xaritam suñu mbokk suñu xarit Jamil Sey andak suñu mbokk suñu xarit Cheikh Tidiane Diéry Cissé ànd ak ñu baree bari ci waa kër gi Hadi Dawra Hadi Abdoulaye Cissé ak ñu duur ñoom ñoo xam ne kenn mënu leen lim te ñoom ñépp benn bëgg-bëgg bi moom lañ bokk ak ñun ànd ak ñun ñëw fii tey jëm ci ñan jëm ci waa kër Cheikh Hassane Dème ndax xam na tey xalifa kër gi mooy Seydi Mouhamadul Kabir dem moom ak ay rakkam yépp Abdul Baqi mi doon wax sànq dégg ngeen ko ak waxtu yu rafet waxi ju rafet yi nga xam ne moom la fi wax kàddu yi nga xam ne moom la fi yëkkati ak ñaan yàlla yi nga xam ne moom la fi yëkkati ak Seydi Mouhamadul Habib ak seen rakk yépp Abdoulaye Dem Sidi Ali Harazim dem ak seeni jarbat melni Cheikh Ibrahim Mamoun Cheikh mamoudou Mansour Mamoun ak seen benen rak bo xamne duma ko faté muy Serigne ali Dem ndax mom dama am luma bëgg wax ci mom motax makoy ma koy ak ñi nga ay setti cerno lañu bala ma gërëm danaa gërëm ñu nekkoon ci rajo bi fan yii nga xam ne mën na am sax ziyaara daaw lañ teg wala daaw jeeg waaye wax nañ ay xam-xam yoo xam ne rek jar na taxawal guddi gi ku nekk jëriñu nga ci ñoom te ku ci nekk rek wax boo wax rek buñ ko delloowee ci xam-xam xam ne lu wér la maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla fayante ñoom bi ñëwee itam ñu fekk fii gouverneur bii nga xam ne moom lañu dénk région bi mook préfet ñoom wane nañ ne lu baax lu nekk rek ñu ngi ci biir ndax fan yi ñu ngi tase lu bari ci xew-xew yi mbokk yi jëflante yi nga xam ne yàlla rek moo ko waral yàlla na yàlla fayante ak ñoom te yàlla kawel seen daraja bu baax a baax te li nga xam ne itam moom la président yaakaar ci ñoom yàlla na ko yàlla may lu ëpp loolu may leen ko ñoom itam te barkeel seen njaboot fekk fii Sidi Mouhamadul Habib moomu Cheikh Ahmad Daamal Khalifa mu joxe kàddoom ci suñu kanam lépp daal nekk leer ci kaw leer fekk fii Mouhamad Ndiaye Rahma dégg itam kàddu yi ñu wax ci moom gërëm ko ñaanal ko fekk fii Serigne Aliou Dem di ko ndokkeel ci kanam mbooloo mi lépp gannaaw bu ñu ko ndokkeelee ci li paase di kontaan lool itam ci ndomba bi nga xam ne moom la ko yàlla takkal dama fàttaliku ñaari at ci gannaaw dañoo toog fii Serigne Kabir mi dem wax ne président ñu ngi lay gërëm waaye ñun benn soxla lañu am ci yow mooy nga falal ñu Serigne Aliou Deme mi fekkee nit ñi fàtte nañu koy itam man fàttewu ma ko daaw jeeg la def na ko nag kon ko ku jara gërëm la moom mi nga xam ne itam takkal nañ ko ku jara ñaanal la yàlla di ci teg rek ay ndomb di ci teg ay ndomb di ci teg yàlla waxtu nekk mën naa dolli waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko jig te yàlla na nekk tiitar yi senegal lépp nekk tiitar yi waa Médina nekk tiitar yi waa Fayda bi ci fam jëm yàlla bu mu fa taseeg benn jafe-jafe himmaa yi Maulana Cheikh Ibrahim yàlla na ko jiitu foofu ba nga xam ne lépp lu mu fa war a liggéey rek dana yomb ci kanamam xew-xew bii nag ñu ñëw fekkee leseleen tey nga xam ne yàgg nañ koo fekkee yaakaar naa bañ ko commencé def ba léegi benn yoon la ma fekk ci tukki ma tardé ko waaye lu may loolu rek musuma koo tardé ndax xam ki ko def kan la ak ki ñu ko defal kan la ak fi ñu ko defee fan la Mawlana Cheikh xam naa ko bu baax du woon ne dañ may nettali ay yëfam xam naa ko ci tukki xam ko ci Madina fii daan waxtaan ak moom mu ubbil ma xolom bu baax a baax di wax ak man comme kuy wax ak moroomam lépp loo xam ne mës naa lënt ci suñu kanam rek bu ma ñëwee ci moom am ci lu leer nañ lii Seydi Abdul Baqi nettali léegi damaa ñëw fii waxtu tusubar muy si ko ne ko man dama amee xaraara boo xam ne def nañ lu nekk mënta dañ mais man xanaa dafa am tur yàlla booy sikkar ma ne ko ah am na lu may sikkar de mu ne looy sikkar ma tudd ko dara mu a ma xay loolu la yow ñaar fukki at ak juróom-ñaar nga am ngay sikkar loolu loolu mu lay indil lii noppi ba mu yàgg mu ne waaye yow dara du la daal ndax li ma gisoon dara du la daal lii dafa ziyaara si nii rek di romb waaw daal li ma nettali li ko yàlla wanoon yépp te lépp nekk ay dëgg yoo xam ne waxu ko woon ngir may ma ko waxutu ndam ngir suma teewaay ndax wax na ko ñeneen ci njabootam moo tax lépp loo xam ne dañ koo tëgg ci këram rek incha allah danañ ci teew su fekkoon ne duutoon na Cheikh Ahmad Tidiane sax lañ koy defal waaye moom lañ doon defal sax moom ci boppam danañ ci teew rawatina nag ba nga xamee ne mu jëm ci Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane xaatamul wilayati muhammadiya ci dëkk boo xam ne dëkk Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu nga xam ne xalifaam la mutlaq ci lépp lu nekkoon kon ñu ngi leen di wax ne yéen waa kër gi góor ak jigéen jigéen ñi maa ngi ciy jiital suñu jigéen Seyda Fatou dem ak ay rakkam yu jigéen yépp ne ñoo ngi yéen benn lañ te lépp lu ngeen nekk rek ñu ngi ci yéen góor ñu itam loolu ñu ngi leen koy tegal ci loxo Seydi Mouhamadul Kabir lépp lu ngeen nekk ñu ngi ci yéen te Seydi Abdul Baqi wax na fii ne nattu nañ ne soxla bu ñu fi wax rek nit ñi danañ waxaat ne yàlla def na ko fii de lañ toogoon daaw sëñ Kabir ne ma Ousmane Ngom mu ne nga ñaanal màkki Sall mu jàll. ma ne ko ah maa ngi koy ñaan xam naa ne dana am ñu ci wax a ndax ma ne ko maa ngi koy ñaan waaye nag réew mi dafa yàqu fi mu ne ndax fi ne boo ñaanalee Macky am ñuy saaga waaye ku ma nar a saaga rek saaga naa la <laughs> alhamdulilah liñ doon wax tombee naag suñu xarit excellence sama dom di dugg si ne kon yàlla nanguna nyangi. ñaan gi la ca des itam ci ay soxla lépp yàlla nangu ko ndax waxtu nekk man damay wax ne yàlla du def genn wàll bu xasee ba def lii rek la ca def na ko moo ngi sant yàlla bu baax di la ndokkeel ci ñëw bii nga ñëw ak waxtu yi nga dugg enu indaale ko rek booy dem yàlla faj yal na yàlla wattu waa kër gi yëpp yàlla leen yàlla dimbale yal yàlla jokkale seeni tëbb ci Cheikh Tidiane ak ci Cheikh Ibrahim ak seen way jur bu mag Cheikh Hassan Dem seeni tëbb yàlla bu ci dara dog yàlla bu ci dara taxaw yal na yàlla di leen yokk daa iman te bañ leen a wàññi mbooleem ñi nga xam ne def nañ seen loxo ci guddi gi ñu ngi ñaan yàlla yal yàlla fayanteeg ñoom ku ci nekk am nga ajo yoo xam ne xam nga ko yàlla xam na ko yal na yàlla fajal leen ajo yépp képp ku fi dugg booy génn yàlla nga fi génn ànd ak aajo yu faju moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu àddina yàlla moom xam na ku nekk sa bëgg-bëgg lan la te ku nekk itam mën na laa fajal li nga bëgg te du wàññi ci nguuram gi dara du wàññi ci am amam dara du wàññi ci man-manam dara te ñu ngi am yaakaar ne mbooleem yi fii sëñ Abdul Baqi tudd yàlla dana ko faj mbooleem yi nga xam ne itam sëriñ Kabir mu ngi ko bëggu bëgguñu ñaan ci yàlla dana faj lépp ndax yàlla xàmme na lépp yàlla na yàlla di leen yokk daa iman te yàlla bu leen wàññeeku ci benn anam yàlla na yàlla def jàmm ci senegal yàlla na yàlla def jàmm ci senegal yàlla na jàmm ci Sénégal ki ko jiite nii nga xam ne ñu baax ñaap ñu ngi ko doon ñaanal yàlla ba yàlla teg ko fi mu ko teg yal na yàlla téye ci loxoom bu baax ommat ko jëmee ko ci li nga xam ne dana jëriñ réew mi ci li feeñ ak ci li ñu ñuy gërëm gouverneur bu baax comme ni ma ko waxee sànq ak préfet duñ dañ di leen gërëm ndax ñu ngi taxaw ci soxla yi kon ñoom itam yàlla na leen yàlla uutu ci seen soxla yëpp taxawal leen ci yal yàlla dimbale leen boppam suñ mbokk sëñ Ousmane Ngom mii dugg léegi nii nga xam kóllëre la goo xam ne mu ngi ko jàpp te mësta rëcc ci loxoom yàlla na ko yàlla gën a dimbale léegi la ma sëriñ Kabir wax ne yaa ngi ci yoon di ñëw yàlla def na fekk nga ñu fii defaguñ sa xatmu bi mooy ne lépp lu ñu fiy def rek yaa ngi ci biir te sa soxla yaa ngi ci biir te yàlla dana la ko defal yàlla na yàlla wattu ñëpp ñi fi dugg ñëpp ku fi dugg ak soxla yàlla na ko yàlla faj ku fi dugg ak feebar yàlla na ko yàlla saafara ku fi dugg ak bakkaar yàlla na ko yàlla far ku fi dugg ak jafe-jafe yàlla na ko yàlla yombalal ku fi dugg ak wërsëg wu xat yàlla na ko yàlla yaaxal ku fi am bor yal na ko ko yàlla fayal ku fi am ku dem itam yàlla na dellu si ci jàmm yàlla na ñu yàlla boole wattu ñun ñëpp ci lislaam wattu ñu ci gëm yàlla te bu ñuy dajeyaat fi déwén yàlla na fekk kenn ku nekk ci ñun lii soxlaam yàlla defal na ko ko yàlla mën na loolu yàlla na ko def ci barke boroom guddi gi muy ak ci barke ki tax mu sos ko muy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane ak ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ku fi ñëw rek bég ci Cheikh Tidiane moo tax nga ñëw fi te ñoom dañuy wax ne man fariha bina farihna bihi ñun ku bég ci ñun ñu bég ci yow moom ku bég ci moom mu bég ci yow te képp ku mu ci yow sa àddina ewen na sa àllaaxira ewen na yal ñu yàlla defaloo ñun ñëpp yal ñu yàlla wattu wattu mbooleem famille bi yëpp te dimbalee mbooleem ñi nga xam ne ay taalibe lañ ci kër gi itam seen waxtaan yéeg di ñuy sikkar ak yëpp maa ngi koy dégg ci rajo bi bu di gu nekk du tëdd lu may dégg naa yëpp loolu yëpp nag ay kóllëre la yoo xam ne yàlla du ko sànk mukk la àddina te yàlla na yàlla nangu lépp ndax loolu bu nangoo Sénégal yëpp mën na cee baaxee soxla yëpp mën na cee fajoo te ñu ngi am yaakaar ne yàlla dina nangu lépp ndax li ma wax sànq yàlla du def ay genn wàll wala muy defantu moom lépp lay defandoon rek am na yuñ ko waxoon def na ko am na yu des def na ko moom itam xañ na waxtoom pour feeñal ko moo jotagul yàlla na ko feeñal ci na nga xam ne noonu lañ ko bëggee ñu ngi ñaanal xalifa bi itam mu ngi ci tukki yàlla dellu si ko ci jàmm buy dellu si dellu si ak sago ak wér daal man te mënal boppam yàlla mën na loolu yàlla na ko def yàlla na ko yàlla dimbale dëgëral ay cëram yëpp wattu ko ci zahir ci baatin jot naa ko tey rek mu ne ma waaw lépp lu ngeen ma ñaanal egsi na ndax lépp lu ma doon tawat daanaka lépp dem na wax ne ko loolu la ñu doon mébét moom lañ doon ñaan yàlla kon ñaan yàlla nangu na loolu kon li des lépp ci soxla yi yàlla na yàlla nangu ko am nañu yàlla boole wattu ñu ñëpp. ma ne Serigne Aliou am lu ma bëggoon a wax ci moom moo tax ma yéex koo tudd waaye xam nañ ne war nañoo gërëm président ci li nga xam ne moom la def ci moom ndax fii la ko Serigne Kabir waxee woon. ci kanam ñu bari ci nit ñi ñu fi nekk nii yàlla def na mu def ko kooku nag war nañ koo gërëm war nañ koo ñaanal yàlla waa kër Thierno yëpp daal ci seen làmmiñ ñuy gërëm président Macky Sall ci li nga xam ne defal na ko Serigne Aliou dem ci fan yi nii te am na lu jiitu woon yàlla na yàlla fayanteeg moom moom président li mu ci nguuram itam yàlla na ko am war nañ koo ñaanal yàlla ndax Ben wali yàlla dafa wax ne dañ na ko bu la yàlla feeñoo na la waxal ben soxla rek ma may la ko te du nekk ñaar ban soxla ngay wax mu ne kon damay ñaanal yàlla buur bi àtte réew mi mucc ndax su muccee man danaa mucc ñeneen danañ mucc waaye man su ma man kenn maag suma kër rek la kon moom itam ñu koy ñaanal yàlla mu mucc ba pare lépp li nekk ci kanamam tam soxla ko da defal ko ko mm-hmm. waaye lii mu def ci Serigne Aliou dana xam ne defut ko ci fu ndaw defut ci defut ko ci ku ndaw itam te geeni golo wala fi ñu ne gudd na waaye loo ci laal boromam xam ko def na ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla fayanteeg moom yàlla mën na loolu yàlla na ko def ah mu ne doomi shérif mu ngi fi doomi shérif Cheikh Omar la waaw Cheikh Omar سيدي محمود أكو جور سيدي محمود سيدي محمود البشير أكو جور سيدي محمود البشير سيدي محمود الحبيب أكو جور سيدي محمود الحبيب الخط متجاني مو جور وي في تاو كون كيب كو خامني شيخ تجان جارال نالا دارا غوديم جي جارال نالا دارا ريك نغا ген ادي ني داجالي كو جوخو شريف بي تاو بايام مودان نيو بايام دا فا نيك سي توكي وايي الولد سر ابي بو تيوي ريك بايام مو تيوي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بقنا الله غير الله إمام شيخ تجاني جارما سوبنا لنجر باينيس إمام شيخ تجاني جارما سوبنا نجيتما imam sheikh jarama xoolu naa la ngir yàlla imam sheikh Tijani jarama sopp naa la ngir yàlla sheikh kabir dem jarama xoolu naa la ngir yàlla sheikh kabir dem jarama rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad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 حمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة والسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نوير به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا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 يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج وامدد علينا من حماك الأمنع سرادقا من حل فيه يمنع اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا في كنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يضام اللهم ندرأ بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك, كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا والطاعين وعاصنا اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين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 xàllalaale la yoon ci guddi gi nga xam ne yaa ko jagoo war koo dundal waaye tamit ñu nàndal ñu ci sa ifadaat yu am solo yi nga xam ne moom ngay ñuy jox at bu jot waaye alhamdulilahi rabbil alamin yàlla indil nañu ndollal ndollal li moom mooy cheikh mouhamadul yi gis naa ko ba muy dugg ba ngay dugg si nim sigré ak nim mu kontaanee rabbil alamin kon yalla yalla yagal len fi yalla yalla may len wér yalla yalla agali àggali yi gi nga xam mu ngi fas ci yeen daiman iman ko yalla gëna fessel ba lawal ko ci sen ak njabot ci barke bañu ñes anhu kon ñu jox kalima bi Cheikh Mouhamadul Mahi nek ci bar mi sen ñu ngi taxawal sen secret bay bi nga xam dox euh, euh, dono bu tedd la bu tasaaroo fii ci Sénégal tasaaroo ci loxo Cheikh Hassan dem bu fekkee dégg naa Dramé ci waxam keroog waaye arab dañoo wax ida xadara al maau batula tayammum ida xadara al maau batula tayammum xanaa nettali leen loo xam daf ma dal tey kéemtaan la kéemtaan pour ma dama toog fàttaliku benn bay ci complètement seet seet seet fàtte ko xaw ma koy gisee ma àbb diiwaan pour seet ko ci di ubbi diiwaan bi kayit par kayit kayit par kayit ba mu jeex gisuma ko tusbaar a ngi jot may julli ma ne bu ma jullee ba pare téléphoné la mel laaj ko ko parce que mos nañ cee waxtaan ca Qaahira xëy na mu fàttali ko baytu boobu waaye ba ma koy laaj du ma koy laajee baytu bi ca boppam laa fàtte alors ma ma ma may may may ma jàpp julli bi ma su jotee rek bayt bi wàcc ci sama bopp bi wallahi alazim fa ma ayaamu rabii wala su sàkkantu ahmada qaatina loolu lamin dina leen ko tojal parce que sirrul katmiya mi ngi ci asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum soo gisee sax ndax yow muy muqaddameek soppi seeni jàngoro teg ak seeni soxla pour ma ne waxuma mu ñaan de xaatire ci xolam rek mu am ndax dafa am fum mu jaar ak man waxee mu am mu waxatee mu am te yàgg na am kon nag baaba taalibe yi sopp yi say yépp soxla yi bari na jafe-jafe yi bari na yaakaar ci yow ne yaakaar du tas teer bi mu teew ñun woon na fi ci heure bii amoon soxla yu ñu amoon biñ ko yéenee bim ñaanee wala bim xaatiree soxla yooyu faju na ku wax ku waxut man de suma bopp laay faj soxla yu ma yéenoon woon faju na loolu nag laa yéene mbokki taalibi ba tax ma ne lakket ak neen nag Sosok soxla yalla da ngay def lu la jaral nga am yalla soxla khalis da ngay def lu jaral nga am khalis dama ne barke duñ ko maye duñ ko sarax dañ koy jënd kon nak mo taxone man la ma dégg Dramé am lu mako sas sas yu matna alhamdullilah kon nak baba li talibé dajalé ke ko ni ñu ko tek sa lox nga ñaanal ñu yalla ndax saa yu ñu la gisee rek ñun su njàqare bu jeex na mosoo ñoo wax dara mu dañ loo ñu mos a wax rek yàlla def na ko ndax làmmiñ bi nga waxee bi ngay waxee ak fi nga toogee man xam naa kon nag sëriñ bi fu ngi daan jaaral man rek laa bu nga jaaral ñépp xam naa ne ci gendeku rek mu am حضرة القدس عند محق سواها لا سواها يا من يروم لقاها حضرة القدس عين وجه إلهي ومدام كاس يروق حلاها برزت منها أولا حضرة المختار لعين لهائها وهي ها معاني أبي العباس أبنى المعاني المعاني وأبنى معاني شوقه ذا أبى الشوق إلا أن يكون ملازمين وطنب حتى صرت سكران صاحيا وقد غصت بحر الغيب في بحر سره ولم أكوان لا ولا متوانيا إلى أن رأيت القطب أحمد أحمد, أحمد وقصر وجود الكون شيد بانيا حقيقة سر الكون ذان مكونين وخاتمة الأمراض فردا ساميا لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله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 أفضل من نطق وبلغ عن ربه أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه هدي هدي كتاب الله واستمسكوا به وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيت أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي عن شيء شاء لا يعتبرها من موجودة يتكلف جميع أفعال الخيرات يصلي ويصوم ويحج ويتصدق وينفق بماله وكل هذا أدبا مع الله وهو يعلم أن ليس هناك شيء إذا وصل العبد إلى هذا فقد ارتبط بالله ارتباطا حقيقيا لا يفعل شيئا إلا بالله في فضل البسملة متصلة بالفاتحة دون التفات إلى أقوال المالكية بهذا الخصوص قال رضي الله عنه مخاطبا تلميذه الأخص زكي المدغري يا مولاي زكي أنا أخاف أنا أخالف في فيها مذهب مالك على رغم أنفك وقال مبين مبينا سبب ذلك الموقف عمري ما تركت البسملة متصلة بالفاتحة لا في الصلاة ولا في غيرها للحديث الوارد في فضلها المؤكد باليمين باليمين ونص الحديث وهو قال الله تعالى وقوله قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا إسرافيل وعزتي وجلالي وجلالي وجودي وكرمي من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة الكتاب مرة واحدة فاشهدوا علي أني قد غفرت له وقبلت منه الحسنات وتجاوزت له من من السيئات ولا أحرق لسانه بالنار وأجيره من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب يوم القيامة والفز في الفزع الأكبر في فضل زي زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم المخصوصة بجوهرة الكمال قال رضي الله عنه لكن في طريقتنا الزيارة لمولانا رسول الله وهي أن يقرأ جوهرة الكمال عشرين مرة ينوي بها زيارته ويهدي ثوابها له صلى الله عليه وسلم فإنه من حين يكمل سبع مرات ويجلس مع صلى الله عليه وسلم مع الذاكر بذاته حقيقة ولا يزال جالسا معه حتى يكمل العشرين فإنه بهذا الفعل يكون كمن وقف على قبره صلى الله عليه وسلم وزاره والذي يحصل له من الخير والثواب في هذه الزيارة لا يأتي عليه الحصر والعد وهو مكتوم لا يحل ذكره ولا يعرف إلا في الآخرة وهذه الزيارة له صلى الله عليه وسلم لا لا تتقيد بيوم ولا بوقت بل هي مطلقة حيث حيث شاء فعلها وهي تغني عن زيارة, زيارة الأولياء في ختام هذا الحديث الشيق الغارق من بحر هذا الشأن العظيم من شؤون الحق تبارك وتعالى أتضرع إلى الله الكريم الوهاب الرحيم الودود متوسلا بلساني حالكم جميعا بذات أحمد وبحضرة ولايته وبمقامها مقام مقاميها الختمية والكتمية واستمراره من حضرة جده سيد وجودي صلى الله عليه وسلم وبسر إمداده للعوالم بحضرة حرازميته وخلافته حضرة حضرة عبد الذات ومظهر الأسماء والصفات أن يتكرم علينا بإصلاح شؤوننا وشؤون المسلمين وأن نرجع إلى الحق عز عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وأن يحيينا حياة طيبة في الدارين في الدين والدنيا والآخرة وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا حملة حملة لرسالة الشيخ إلى العالم رسل خير بهذا النور المبين إلى الأمم وتتحقق فينا بشارته القائلة أراكم ملوك الأرض لا شك فسدوا اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله حق وصحبه حق داره العظيم ودمتم في رعاية الله وفي كنف أكناف هذه الحضرات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيران كو واجلينك لنغا nag li تارو بس بموي قم قم وايه تمين قم جنة jataay bi bu taxawee mel ni mel nii am na leneen lu ci rax lu dul xam-xam kese muy wàllu am-xam te yaakaar naa ne mooy ñaari tànk yi nga xam ne dox bu nar a rafet fokk rek ñaari dana ci am xam-xam ak am-xam ma bëgg a seedeel nag sëriñ bi ak ñi toog ne liggéey bi ñu ngi ci doon def jàng ay salaatul faati di jàng ay kaamil ngir haddiyaalee ko Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu nga xam ne benn kaamel rek suñ ko jàngoon haddiyaal ko Cheikhu Tidiane yàlla nangu ko doy na sëkk ak barke waaye ñu nar leen a wax nag li nga xam ne moom lañ ci jàng ci ay kaamil ak liñ fi jàng ci ay salaatul fatihi lima uxliqa nga xam ne doy na njot adduna bi lépp ñu ngi wax sëriñ bi ne ko sëriñ daara yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ak ñi ne ci biti dëkk bi ñépp ameel nañ leen ngërmande ndax li gën te nekk karaamaay Maolana Cheikh Ahmad Tidiane nga xam Cheikh Maolana Cheikh Ibrahim nga xam ne jataay bu mën a taaru lañ koy taaralee la ca gën a xam taar mooy alquran bàyyi nañ seen i def li nga xam ne moom lañ nekkee woon ca daara ya jàng ay kaamil yu takku maasa alaaw mooy am nañ ci limu kaamil yi mille deux cent quarante deux ci kaamil nga xam ne incha allahu imaam bu ñëwee gannaaw julli gexe gi ci la koy xatmu di leen wax ne jàng nañ ci salaatul faatihi li ma uxliqa nga xam ne Seexu Tijaan moo wax ne aalam bi yëpp suñ ko multiplié woon ñetti yoon ñëpp nekk mooykati yàlla boo jàngee benn salaatul faatihi li ma uxliqa yàlla kaafara mboolem seen bàkkaat yi taalibe yi nag jàng nañ ci cent douze millions huit cent sept mille trois cent quatre-vingt-quinze cent millions douze cent douze millions huit cent ci salaatul faatihi li ma oxlixa téeméeri million ak fukki million ak ñaar ak juróom ñett fukki junne ak juróom ñaari junne ak ñetti téeméer ak juróom ñeen fukk juróom lii la taalibe jàng ci ay salaatul faatihi li ma uxliqa ma am nag ay jaayisa yoo xam ne dama ko doon defer ngir di ko neexalee liggéeykat yi ci lu jëm ci liggéeyab laylatu katmiya te ñu gën a fonk nag ci biir liggéey bi xam-xam waaye buñ paree ci xam-xam bi dañu dem ci liggéey bi nga xam ne liggéeyab pexe ak liggéeyab am-am su ko defee ki nga xam ne moom la ñuy njëkk a jox jaayisa ci liggéey bii nga xam ne mooy liggéeyu xam-xam bi mooy Cheikh Abdoul Baqi Assane Dème dëgg-dëgg ci biir dëkk bi ca dakaar fu nekk ay guddeem ak bëccëgam ngoon suba xamul télé boo xam ne bi yéen am nañ ci moom émission la mooy dem na fa toog fa waxal ñu ci xam-xam moom ak oustaz Ndaw kon kooku wax dëgg yàlla fokk ñu neexal ko kon lija eh, maanaam li nga xam ne mooy lijaase yi nañ yëkkati benn joxal ñu ko Sidi Ahmed moo joxal ñu ko Cheikh Abdoul Baqi Assane Deme dañuy joxe ñaari jaay sa yi des ma tudd seeni warom su jotaay bi paree ñu jox leen ko. naka am nañu jëlee àdduna lépp sa nga na ci rajo yi dem na ci télé yi te yàgg na koy def loolu bu amee dara lu muy jàngal lu muy tekki mooy mu ngi wan ndaw yi ne fii la nii la ndaw luñ ko mën a taggee lu dul xam-xam xam gën ku ci moom. ndax xam-xam mooy liy jëriñ àdduna lépp kon jëlal benn jaay nga jox ko Cheikh eh, waaye ñu teralee ko eh, Cheikh Mouhamadul Kabir mu joxal ñu ko Cheikh Taha ñi yi ah, ñu continuer rek pour liggéey bi xaw a gën a gaaw tuuti kon ñi nga xam ne mooy lijaasa yi ñuy joxe ngir xam-xam danañ ci xoo oustaz Aliou Ndaw jox ko moom tamit xam ngeen ne miin nañ jataay bii waxtu wuñ amee thème buñ nar a waxtaanee ci xam-xam moom lañ koy jox waaye boo demee ca tele it moom nga fay fekk boo demee ca rajo yi moom nga fay fekk kon kooku fokk ñun njukkalee ko ñaa eh, gën koy wax ne ko ilal amaam ilal amaam ndax wane nga yoon kon képp koy asaatis ci asta asaatis eh, hadaratu hasani ñu ngi laay wax ne yoon wi nii la bisimilah jox leen lijaasa bi waaw bu loolu paasee nag léegi dama paam ñaan wax dëgg yàlla def na émission te yàgg na koy def kon danañ ko neexal moom tamit ak ku ñuy wax alaaji soxna ak ku ñuy wax Idrissa Touré ak ku ñuy wax Ousmane Ndaw ak Baye Demba si moom itamit ñoo ñëpp nag ci xam-xam rek lañ leen di joxe seen lijaasa waaye dañu jox itamit euh, kii mbow Habib mbow moom itamit dëgg-dëgg yàgg naay taxaw ci télé yi di sigil pey bi di sigil xadara Cheikh Assane Deme di waxtaan ci xam-xam ak ku ñuy wax euh, Baay Mbaara Sañaan moom tamit ca Mbuur rajo ba émission yeñ ñu fa may dem na fa def fa al euh, waxtaan wu am solo kiñ ciy teg mooy alaaji maam góor moom itamit ca rajo bale nga xam ne moo nekk ngànda ak kan ak ku ñuy wax sëriñ Omar Ndaw ca rajo ba moom itamit ñii ñëpp kenn ku ne liggéey nga ci xam-xam fokk ñu jërëgal jëfal leen ñaanal leen yàlla yokk seen xam-xam ne leen itamit yoon bi nii la mu des nag ñi nga xam ne dama leen bëgg a neexal ngir liggéey buñ liggéey ci liggéey buñ liggéey ci lu jëm ci luy éwénal laylatul katmiya wax naa leen na xam-xam rekk du doy fokk am-am dana ca topp rajo yii ngay gis tànt bii ngay gis sées yii ngay gis lépp am-am moo ko mën a déplacé woo moo ko mën a doxal ak li nga xam ne nag moom la njaaya njaaye di war a soxla looy kasaalika naka noonu kon ñi jàpp ci wàllu liggéey bi ki cee njëkk a jox mooy ku ñuy wax Souleymane Badiane Souleymane Badiane moo wàcce ñi nga xam ne ñooy doomi Cheikh Assane yi nga xam ne waxtu wuñ daan waajal ñooy génnee seen xaalis dem defar carte yi mu doon nekk xaalis bu bëri moo ko jël engagement def ko daaw def ko ren kon fokk danañ ko neexal moom itamit ak benn xale bu nga xam ne ci xale pay bi dañu ko Omar Thiam mooy yore wàllu tànt bi lum naaj naaj mu ngi ci lum guddi guddi mu ngi ci bañ commencé lay la kat mais ba léegi mbooleem nit ñi kenn ko da ngay wax ne man de kii sol nangam ki mel nangam xaw ma ko waaye wax dëgg yàlla mooy kii ma gis muy gën a sonn ci guddi gi ci wàllu tànt bi kon kooku fokk ñu neexal ko ndax ñi nga xam ne ëllëg bu buñ leen dénkee tànt bi ñu man cee doxal li nga xam ne moom lañ soxla ci tànt bi ak ku ci topp mooy Ousmane Dieng al muqaddam Ousmane Dieng mbooleem ñi nga xam ne muqaddam yi ñooy ñi dégol seen loxo ci laylatul katmiya bi moo ci sut loxo kon fokk ñu dañ ko neexale ngir loolu danañ ci tegaat nag keneen muy Oustaz Aliou Ndaw xam na prix ci euh, ak xam waaye am na prix yi tamit ci ñi liggéey ci am xam ndax moo joxe wax dëgg yàlla raw nga ndax ñu gën a bëri mel ni man dañuy wax ne damay xaar ba kii joxe ndax xam naa mën naa am dara mu ngi laaj waaye du joxe waaye moom seetul loolu keroog bañ njëkk a dajee moo njëkk a yëkkati xaalisam teg ci taabal bi ba pare matal li nga xam ne moom la sosoon boppam kon kooku danañ ko jox karoom insha allahu ak kan oustaz ak ku ñuy wax kon laatir juuf maanaam benn benn yi nga xam ne duñ ay muqaddam yorewuñ daal xaddan waaye xam na am nañu wàll ci liggéey ci laylatul katmiya kenn ku ne la la yàlla dénk ca nga mën a jaamoo yàlla la nga yàlla daal dénk ca nga yokk am amam yokk man-manam ndax wax dëgg yàlla feeñal na liggéeyam ci eh, laylatu katmiya bi danañ ci teg benn jàmbaar muy yaxyaa mu ustaas keroog bi may wax yow xendalut fanaanalut mu ngi ci tànt bi guddi mu ngi ci tànt bi bëccëg jàmbaar ju mel noonu nag mën naa xam bu ñu ebaloon keneen kum moom mun naa xam mu am lu sooke ndax su fekkee ne yaa war a jiite ay gan wax leen def leen lii bu leen def lii su rafetee su ak su rafetut sa yoon du ci nekk mën naa xam mu ñaaw bu baa bu waxtu wi jotee ñun ñëpp dana am lu ñu yëg waaye Yaxya dafa bàyyi lépp lu nga xam ne moom la waroon a def muy soxla kera ba ko ustaas booleeg ñi yore tànt bi ba bisu tey bi may wax yow mu ngi solu waay su mee koo gut kon sëriñ bi ñu ngi lay wax ne ñii ñoo doon ñi nga xam ne ay liggéeykat lañ waxuma nag ne ñoom rekk ñoo liggéey waaye dañoo gën a fés ci liggéey bi te liggéey bi liggéey la boo xam ne man maay jonjoog ñoom waaye maa xam li nga xam ne moo nekk ci ñoom ndax dafa am ñoo xam ne danga leen di laaj ba pare ñu def ba pare te di ko xeeb laaj leen ba pare ñu jàllal bi ko sant la di la gërëm kooku du bokk ak koo xam ne soo ko laajee tey boo léegi sa xel de est ce que danaa ko laaj ndax nim ma tontoo wala nim ni mu réassuré su boobaa nag Serigne Cheikh Abdoul euh, Cheikh Mouhamadul Kabir ak say rakk ñu ngi lay wax ne taalibe yi gisuñ ci ñoom la mooy ak dëggu ak mbëggeel gisuñ ci ñoom la mooy dëggu ak mbëggeel xale yiñ yar ci la xamee ñoom ñi yar ñan lañ xale yi nga xam ne ñoom lañ yar kenn gisut ci Cerno dégg da lañ xam ci ñoom waaye dafa mel ni sax ñoom ñi ñi leen yar ñoo leen gën a bëgg Cerno ñoo leen gën a fonk Cerno foo leen fekkee ñu nga xam ñu xam ne yow mii taalibee Seex Asan Dem nga rek dañ laay def ni yaay seen muqaddam lépp looy soxla danañ ca taxaw luñ xam danañ la ko jox waxuma laa nag buñ gisee doomi Seex Asan Dem nga xam ne xàmmewuñ ko góor ka xàmmewuñ ko jigéen ka xàmmewuñ mag ma xàmmewuñ ndaw loolu la ñuy jëflanteeg ñoom gannaaw loolu nag bokki taalibe yi maa ngi leen di santaan man ci sama làmmiñu bopp di leen gërëmaat beneen yoon di leen wax ne nii la nit bu amee lam am mbay mbay nee na ci la ñuy xamee lam bëgg nit lam ba am ci la ñuy xamee lam bëgg wane ngeen ne am ngeen Cheikh Assane Dème ndax feeñal ngeen mbëggeelam ci jëf ji feeñal ngeen seen mbëggeel ci yar bi amut fenn foo fekk taalibe sax Assane Dème ci kaw ci ci penkoo xarfu ndeyjoor ak càmmooñ la mooy bu la séenee lam laa njëkk a mooy yar ànd ak teggin wan la tab gu mat sëkk lu mu rek mën na ko yëkkati teg sa loxo am naa ci benn firnde dem naa Dakar ànd ak benn xalem may jëm te mu nga ba eh, mu nga ba yëmb mu nga ba eh, fële yoof waaye daf ma wax ne ma dama laa gunge ba nga yegg bi mu ma gungee bañ yegg dafa jël kalpeem dindi mbooleem li ci nekkoon jox ma ma ne ko déet booy ñibbi looy paase mu ne ma sama orange moo nin am na ci lu ci des yaakaar naa 1000 francs la danaa ci mën a paas ma ne ko déedéet man ngaay dem yéex a gis orange moo orange moo nin man ngaay man nga koy xam ba pare dem ñu ne la connexion nangam nangam nangam kon feeg Malika ak Yoof kenn mënu koo dox ma yëkkati 2000 francs jox ko mu ne mukk duma ko jël ma yëkkati 1000 francs jox ko mu ne mukk du ma ko jël xam nga noonu laa ko bayam loxooy neen laa ko bayee xam naa mu demee ak demer dem waaye li ma yaakaar mooy Cheikh Assane dem du ko bàyyi mukk la mooy am na paas mhm. te loolu nag mooy li gën a tuuti ci li nga xam ne moom laa gis ci ñoom kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne nag am ngeen ay kilifa yu mat kilifa kélifa goo xam ne daf lay daf lay xamal daf lay dimbale daf lay jàppale daf lay jox te du la jiteen du la wax lenn loo xam ne la mooy lu la neex la te duñ la jey nag ba wax loo di def loola loo xam ne lu warta def la wala wax la loo xam ne lii duhut luñ la war a wax kon ñu ngi gërëm suñu kilifa yi Cheikh Mouhamadul Kabir yaag say rakk Sayda Faat Dem ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp taalibe yi ameel nañ leen gërëm ameel nañ leen njukkal ñu ngi leen di ñaanal yàlla fan yu gudd ànd ak wér di gërëm Maolana Cheikh Assane Deme ci yar bii nga xam ne ci la ñu teg yoonu bëgg Baye Niass yoonu bëgg Maolana Cheikh Ahmad di radiyallahu anhu kon ñu ngi balo xaq mbooleem koo xam ne kii ñu ngi la téye di la wax ngay déglu wax ji bu amee solo ak bu ñàkkee solo yëpp ab soppe buy wax jëme ci ay àndandooram wax jëm ci ay soppeem ay kilifaam ay sëriñam ñoom rek moo ci dugal maa ngi balu xàq ñëpp di baal xàq ñëpp di wax ne kullu amin wa antum bi xayri asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. laa ilaha illallah laa ilaha illallah waa Kossy TV ngeen ci barahama Kossy TV am ngeen jarama yéen baay yéenay liggéey fay du baay bi ci barahama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa